bismillaahi rahmaani rahiim jërëjëfati borom Touba nañ di santaat la ngir yaa fi gën te ñun Mbàkke yaa baax ci ñun sant nañ di santaat la ngir yaa fi Mbàkke yaa baax ñun sant nañ rawee nañ ci yow Mbàkke yaa tax ñu raw te yaa may ñu tawfiix de ñun sant nañ jëriñ jàmm ya jërëjëf soxna nday Mbacke si kàddu yi am solo yi kon dañu fas yéene jël kàddu jox ko soxna yu ndaw mi nga xam ne mooy wajur sëñ bi fas yéene ay kàddu bisimilah maam ndaw. bisimilah. Amin. soxna Musli mi waajuru sëñ Fallou Adama kon moom lañ fas yéene jox kàddu gi mu sànni si ay kàddu si bis

jërëjëf tarkaas kàddu yi am solo kon soxna loo ma sànni si kàddu bisimilah. kon soxna Ndeye Mbacke bisimilah. salaamaaleykum sëñ Adim Ndiaye ñu sëñ Salif ñu ne ñoom ba ziar waaw ma ne sant rek sant rek di ñaan ndogu ba ñu doon si ñu sant bu baax a baax a baax di ñaan xawaay bi yàgg sëñ Adim Mbacke su àll bi bu gën koo man rek ñoom daal ba mu ay camion camion ñu koy teg ci ay camion ay ay camion di ko yóbbu indi ay gileem di indi ay nag di indi lépp yaay Serigne Ndao te ñu ñaan daal man daal ma yónnee yàlla man lu ko raw ndax am na yéene te am na xol bu di ñaanal sax nit ñi ndaw ñoom muy lool te wér yàlla ñu ko fekki. jommal nañuy ak ñëw fitam waral tey ñu am fet bu rëy te mooy màggalam ji dama laan jëñ borom ndaw dogon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 mbokk julli mbokk taalibe ku na xam ne ni booba léegi liggéey bi ñu ngi si lépp nga dox macha allah si bi nga xam ne mooy dogal sëñ Xaadim Mbàkke xasaayid bi mu toggal sëriñam yaakaaram soppeem léppam di sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëñ Maxamadu Joob bi ñu di ko ñaanal suñu borom dalu ko yàggal te ko wér di barkat Cheikh Xaadim ba lépp lu yéeneem si diggéel sëñ Tuubaa waaye rawatina maam di tedd Cheikh Massamba Mbàkke waaye rawatina wàjju tedd wa sëñ Maxamadu Joob bi mu defee ko ne kaw njot mu tan ànd moom ñoo ngi toog soxna soxna maam Umi Ndaw di wàjju bi lépp sëriñ bi suñu lépp ñu ñaan suñu borom yàggal ko te wéral toog soxna Ndeye Mbacke mi nga xam ne mooy mag sëriñ bi kon dañ fas yéene jox kàddu yi rek jébal ko def si ay témoignage si bis bi nga xam ne mooy ndogu yi si nga xaari Mbacke say toggal wasalaam sëriñam soppeem sëriñ Cheikh Mbacke moom sëñ Mouhamed Diop kon soxna Ndeye Mbacke bismillah ñoo ngi toog soxna Ndeye Amy Mbacke di jëmm ju baax di soxna doomi soxna Oumy Ndaw ko si nga xaari say lépp di caan Mbacke di ku baax koo xam ne liggéey bi wax dëgg yàlla da si jàmbaar lool ànd bi am jot ak mbolam njaboot gep kon soxna Ndeye Mbacke ñu jox la ak ñëw te moo duy bagaanu ku ko fi ñëw di baaw ña doon baaw ba waameem walee kiilu nañ bu leen gantu waameem ba seen mbir di ñaaw. bu réew mépp maase nangul kok mayam te jiital ko kon léem nu mel ni salaatan salaaman alal mustafa ci barkeb ci barkeb xadim mi na suñ lépp dox